ngi leen di nuyu di leen gërëm ci teewaay bi tey danoo ñëw fii woowoon leen ci terrain bi nga xamante ni suñu bokk moomeel moo ko moom muy commune Mermoz Sacré-Cœur terrain bii nga xam ni SICAP da koo jëloon attribué ko commune ni ko fii kat mën nga fa def foo xamante ni nit ñi danañ fa tàggate seen yaram nit ñi danañ fa mën di dem di waxtaan nit ñi danañ xale yi danañ fa mën a fooye ndax gis nañ léegi li jamono yi toll xale yi amatuñu fu ñu fooye xale yi amatuñu fu ñu nekk Parce que Sicap joxee commune bi ni ko terrain bi loolu mooy objet bi tey danoo gis ni détournement d'objectif, objectif bi à n'en plus finir maanaam détournement d'objectif, objectif boo xam ne du jeex jëloon nañ ko ci 2016 2017 avons fait ci délibération conseil municipal ni dafa am benn waay pour ñu ko joxoon bu yor entreprise bu tudd 375 bañ ko ko joxee ñun ak suñu wayjur yi nga xamante ne ñooy ci association phase 4 bi di défendre terrain bi avons fait lii kat waru fee mën a am ndax terrain bi RDG la waru am centre commercial ñu ànd ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi di wuruj suuf di ko lijjanti ba yokku ci kani war nañ cee def centre commercial tey jii biñ koy def centre commercial ñu ne nag dana nekk xanaa à titre précaire et révocable ña nekk ca bokk moomeel ba muy conseiller municipal bi Habib Mboub mii di sama xarit bokk ci ñoom ñu ko ñoom ñu valider ko ni conseil municipal ba la nekkoon en 2014 joxe woon ko ni mën naa nekk centre commercial ñu ni comme titre précaire et révocable la nañ bàyyi mu jàll ñu am maire boo xamante ni day wër ci réew mi fu ne di yooxu lu ne mu ni moo baax ku ne mu ni moo bon lu ne mu ni moo ko mën man naara ngi naar yaa ngi suñu suuf si ci commune bi ñoo ngi koy tong-tong duñu nangu ñu koy tong-tong douze mille soixante-sept mètres carrés ci kaw tali bi fii ci diggu Ndakaaru du lu ñuy tong-tong du lu ñuy fooyee ñu jox ko Alassane Ndour ancien international lañ ciy wax bu dee moom la ñu ngi koy woo mu ñëw leeral ñu wala mu ñëw waxtaan ak ñun ndax droit acte trois de la de la décentralisation moo nu jox ñun ñi nga xamante ni fi leen dëkk ñu ñu am droit interpeller maire ak koo xamante ni war na fay mën a ne bañ ko ko joxee daf ni dafay def aire de waaye aire de ay la yoon day fa yekku bu fa yekku amee dina am ku am dina ko am ku amul doom yeeg xarit di nekk ci commune yi du ci àll bi bu loolu weesoo am na ku ñuy wax beleel boutique ñu ni ñoom lañ jox ci gannaaw lañ ko jox kenn xamul lu mu ciy def xanaa bu ñu nee titre précaire et révocable li ngeen di gis mu am pylône yi ci ginnaaw xanaa du précaire de du révocable kenn xamul immeuble lañ fiy def kenn xamul ban délibération la délibération bi li gën a grave mooy proposition de délibération la maire day proposé conseil municipal bi délibéré kenn gisul fenn fuñ ko délibéré ñu ni kenn du wax déedéet duñ noppi dañ koy wax kenn délibéré ko yéen a ngi gis ni mi ngi dem ñu ngi tong tong suñu suuf te duñ ko nangu Auchan man joxoon ñu yokkal ko ci gannaaw 500 mètres carrés bu mu def magasin wa ñun ñi fi dëkk dañ nan tek rek taxaw di sétan mani tong-tong bi duñ ko nangu d'accord ya, maire bi ndax waxtaan ak yow ndax tay jii li ni xamal ngeen ko ko ak lan ngeen di ñaaw ak lan ngeen koy euh, ñaawlo Barthélemy bi mooy moy ko xamni du waxtaan du déglu bu ko nexé rek bu tangé rek mu wax bu ko nexé boo officielle maire ba du répondre boo envoyé message duñu répondre nga woote duñu répondre xam ngeen bokk momel ñun ñëpp a dëkk ñun ñëpp xamanté xamante xam war naa mën a rafet waaye dafa rafetul nag dëkkuwaay fii rafetul boo leen waxé ñu ni occupation anarchique bi danañ ñëw défar ko proposer leen nous avons des plans yo xamante ni proposer nañ ko commune bi ban leen ko proposer ñun population la xanaa dañuy teg rek waye amuñu droit def maire bi ba acte trois bi ñëwee ba légui yor na moyen yu mu aménager terrain bi té maire bi defatu ko aménager tul dara légui nak

Le combat vient de commencer. L'objectif est toujours devant. Sunu objectif mooy sunu détournement bi ñu bëgg C'est def si terrain yi détournement d'objectif bi du fi amé, tong-tong bi du fi amé. D'accord ci nous justice euh, da ngeen une plainte. plainte. Porte une plainte association phase 4 bi sunu parents yi madame Awagay, présidente bi ba léegi une justice des renvois à n'en plus finir tey woo nañu ministre de l'intérieur. Nous avons interpellé le sous-préfet bi laaj ko approuvé l'autorisation bi sous-préfet day approuvé autorisation de construire Nous xamul luñ le def terrain Nous avons ministre des collectivités locales comme mairie, pouvoir déléguer les gens Nous avons délégué l'état état central nous délégué maire Nous avons woo ko interpellé maire Nous avons le directeur général de la SICAP beaucoup moins, moomeel la Sacré-Cœur la tudd SICAP SICAP le terrain bi ñëpp xam nañ kayit suuf nu muy demee Sénégal boo dëggee ay kër da naan fii école nga jox kii de droit nga ne fii centre de santé nga jox kii de droit nga ne fii sport nga jox mairie mu war a aménager ndax SICAP du aménager kenn léegi nag SICAP détournement détournement d' objectif boobu lañ ni ko na woo maire bi fi ne waaw mu woo conseil municipal mu laaj leen ba xam ñoom ñoo délibéré ci loolu damay bàyyi sama xarit bi Habib Mboup nga xam ne conseil municipal la danañ leen jox délibéré yi nga xamante ni moom lañ yor ben délibéré la am 2014 la won ici ci des ay projet de délibération la te ci bi délibération ni ci mentionné que ni délibération yi dañ ko wara publier ko taf ko partout de droit li ken musko gis dama ni tong-tong bi duñ ko nangu. tay défé na ni sama naataange ki di pap Samb wax na lépp conseil municipal bi ñu ngi may dégg je pense que tay délibération bi ñu wax ni que mom lañu joxé fini pour ñu mën def aménager lii le conseil municipal bi amul kenn ku ko voté projet yaangi ni délibération yaangi ni nii ñu proposé won man damay wax ni Bart moom moo tax taxaw di xex mbirum foncier boo leen xoolee problème littoral bi nax saay na kenn waxatu ci problème terrain Dakar dem dik bi nax saay na kenn waxatu ci problème panneau yi nax saay na kenn waxatu ci. tey nag comme tey yàlla da ko tey mu bëgg ville de Dakar te bu mu bëggee ville de Dakar nag bu dee maanaam budget lay wut bu mu tong-tongee suñu terrain bi ngir mën am budget de campagne Pape Samba wax na ko sànq suñu wax du bëri tey nag nous allons appliquer et que la guerre vient tout juste de commencer Bart nous serons nous face à lui war nañ ko foncier bi appartient wul ak Barthélémy Diaz foncier bi appartient wul ak ma samb wala ma Dem ñun commune Mermoz Sacré-Cœur le titre foncier bi tudd ñun ñoo ko moom lii nag kenn du ko paacoo di lancer o appel à la jeunesse di leen wax ni que lii suñu bijou la tey espace bi waroon nañ ko aménager terrain multifonctionnel te defe naa ni loolu la ñu proposé woon terrain bi waroon nañ ko aménager tey espace de détente tey yàlla dafa def ni deux voies Sacré-Cœur yi amatul fan la suñu waajur yi di féexloo fan la jeunes yi di taxawloo di di daje maa ngi di poser question boobu noonu mais tay gis ngeen boo leen gisee poteau yi ngeen xam ne ni lii lu ñuy gas la machine baa ngi gas kon lii luy jëm ca kaw la tey ñu ñu nax nag dañu jéem a wax ni que 2014 bu leen fàttali ko woy élection locale 2014 c' était en juin délibération nag bu muy wane ni boobu c' était en janvier 2014 boobu fekk conseil municipal bii nii euh, présenté wuñu guñu woon nekkuñu woon en place kon tey bu ñuy war di ne conseil municipal bi ñoo voté délibération yi dañuy wax naka du sudul noonu am na yeneen ñaari promoteur ñoo xam ne maanaam tey ku mel ni SMK kooku xam na boppam ñu ngi koy wax ni nag mu teggi tànk te xam ne ni mbirum suuf bu mu tax muy ñëw di def naka sudul noonu am na beneen tamit boo xam ne matricule la ci délibération yi ñu proposé ñu ko conseil municipal nous avons refusé parce que tey lu ñu proposé ak lu ñu gis ni bokkul di leen wax ni nag yéen la presse boo leen demee ngeen laaj ko moom si jëm boppam ndax li mu waxoon askan bi bañ koy fal 2009 ndax li mu diggoon waa Sacré Cœur ci wàllum terrain bi est-ce que jëfe na ko waaw wala déet question boobu laa amoon lu ma koy posé.